Yàlla

asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nuy seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi ak ca bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér di ko ñaanal it mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi tey samedi dëppoo le 12 novembre 2022 ñoo ngi fii ci Daarul nan ci ziar bu mag bi nga xam ne moom la fédération daayira yi Maam Jaara yi nga xam ne ñu nekkee ci Dakar ci njiital soxna Maam Jaara Mbacké bintu Cheikh Mouhamadul Mountakha àndal liggéey bu am solo ñëwoon ci sëriñ bi doon ko ziare si mu nekk ziar boo xam ne mbooloo moom yëpp ñoom ñoo àndandoo ñëw ci sëriñ bi fas yéene koo jébbal liggéey bu am solo bi nga xam ne bokk na ci yenn yi nga xam ne naal nañ ko ci daara maam jaar ja waaye jébbal ko seeni i addiya muy batiment bi nga xam ne ni ngi ni daaw lañ ko dooroon doon ko liggéey mu nekk bâtiment boo xam ne moom la jàngalekat yi dëkkuwaay jàngalekat yi la lu toll ci fukki néeg ak juróom-ñaar yoo xamante nii daanaka benn bu ci ne ànd naak salle de Euh, caabi nag moom lañ fa yéene jébbal sëriñ bi liggéey ba noppi waaye jébbalaale ko seenuk addiya mu nekk fédération boo xamante ni mboolem daayira Maam yi nga xam ne moom la ëmb te soxna jaara Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadoul Mountakha jiite leen ñuy def liggéey bu am solo sax dàkk di liggéeyal soxna Mariam Bousso Jaaratullah waaye rawatina ci daaram ji nga xam ne moom moo nekk ci Poroxaan ci ay projet yu yaatoo yaatu yoo xam ne seen objectif moom mooy gën a ñoŋal daara ji waaye capacité d'accueil bi ñu yokk ko ba mu gën a mën a jël Maam Jaara yu bëri waaye euh, liggéeyaat daara ji ba mu gën a méngoo ak jamono ci ay projet yoo xamante nii teg nañ ko loole nag ñoom ñu ci woo mboolem taalibe yi képp koo xam ne bëgg naa ànd ak euh, ñoom liggéey bu ni mal moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la mën na jokkoo ak fédération bi ngir fas yéene ñëw ànd ak ñoom liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy def euh, ci daara Poroxaan ji mbokk yi kon ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci Daarul Minan ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ci ziar bu am solo bi nga xam ne danañ taañ taataan kàddu jëwrin yi daanuñ taataan kaddu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite ziar bi waaye daan nañ taataan kaddu yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke moom Serigne Bassirou ginnaaw boo xam ne jëwriñ yi ziar nañ ko ba noppi kon mbokk yi fii ci Daarul Minaan ñu ànd ak yéen ci bi mbokk yi ni leen ko waxee uh, boobu léegi ñu ngi ci uh, ziar bi nga xam ne moom la fédération daayira Maam Jaara yi nekkee ci Ndakaaru ci njiital soxna Maam Jaara Mbacke bintu Cheikh amal fii ci diwaan Mbacke ci kanamu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi ànd uh, yi bokk na ci soxna si ñu ngi lay ziar baax a baax a baax ngeen ñëw si ziar bi ànd ak soxna si bàyyi ko Ndakaaru ndax mën nañu xam tur bi nga bàyyi ko ci Ndakaaru xanaa Pikine Pikine tali tali bu mag naka nga yëgee ziar bi ak naka ngeen ko waajal ak ànd ko soxna si ngeen ñëw ziar yi Cheikh Mamadou Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullah barakatuhu ñoo ngi nuyu kilifa gu tedd gi di ko ñaanal sunu borom guddal fanam lool ba yem jamono ànd ak eggale lépp lu di mébatam ak lu mu tàmbaleegul lépp yàlla na ko eggale ànd ak ay muritam noonu ñuy ñaanalee sunu jawriñ soxna Jaara Mbàkke di ko nuyu di ko siyaare ah di kontaan ci moom lool nag rëccu wuñu tamit euh, ànd gi nga xam ne ànd nañ ko son maam Jaaratu Mbàkke ci ndigalul Seex Muntaxa ah ndax tamit euh, bi ñu àndee moom ba léegi daal yëg nañ ci sunu bopp yëg nañ ni daal ci sunu yaram daal ak sunu roo daal yëg nañ ni daal ñoo ngi liggéeyal euh, Serigne Touba nag soxna Jaara kon yàlla na ko sunu borom nangu ci barkeb Serigne Touba sant soxna si lu bare bari nag ndax liggéey bi nga xam ne moom la ko waajuram sason mu ànd ko mboolem jàmbaar yi ñu taxawee ko tey jii am na ci ndam am na ci taw feex waaye kon muy nangu ñaanuk sëriñ bi nga xam ni ñaanoon na ko ndax léppam ñaan la te nee na waj xal ju mu wax suñ borom daf koo nangu ba pare door koy sant mu wax ko kon moo waxoon ni fakul ma tadaxtuhu li xayri waj xal xitaamahu xitaama xayri loolu la waxoon loolu sëriñ bi ñaan waxoon ni Euh, suñu boroom képp koo xam ne képp ku koy liggéeyal képp ku tàmbali dara ngir jëmam ju tedd ñi moom xaadimu rasul mu ngi ñaan yàlla mu eggale ko eggale gu mat ànd ak yiw waaw jël xitaama wa xitaama kon suñu boroom euh, nangul na soxna jaara kon tey jii kon euh, am na xitaama xayri ci barke Serigne Touba ànd kook ay jàmbaaram kon ñoo ngi ñaan yoon wi yàlla nañ ko ñëw ay at yu bare bare barke Serigne Touba fekk fi si Cheikh Mouhamadul euh, mun ànd ak soxna Jaariyatu Mbàkke ah ñoo ngi gàttal kàddu yi di nuyu rek mboolem ñu nu àndal jëwriñ yi ak jàmbaar yi yëpp ñoo ngi leen di nuyu xam naa kàddu yi du gudd ndax kàddu yi sant rek la euh, kon nag ñoo ngi wàcc fi kàddu yi rek ñaan euh, ànd bi yàgg lool ak sëñ Tuubaa ñu yàgg fee fekk Cheikh Mountakha jërëjëf mbokk yi kon xam naa rek daañu jëlaat yeneen réaction fii ci euh, ziar bi nga xam ne moom la fédération bi di amal euh, tey jii ci euh, gaaw gi dëppook fukki fan ñaar ci novembre atum 2022 di fédération bi nga xam ne soxna Jaara Mbacke bintu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke moom ba Bassirou moo ko jiite. ànd kook mboolem fédération yi nga xam ne ñoo nekkee ci Dakar di liggéey nag liggéey bu am solo mu jëm ci daara Maam Jaara ji nga xam ne moom moo nekkee ci Porokhane kon est-ce que suñu jëlaat yeneen lii nuy wut si nag da naa ne moo doonoon suñu ñetteelu tomb ndax bëgg sëriñ bi ak di ko liggéeyal war ko indi àddiya mu tuubaa li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati lu tax sëriñ bi ne ñooña ku ca dox ba daje ca kenn ngir nañu dëgg male woon seen borom bàyyi lépp luy jeex daan fanaane jaamu yàlla di jàng alxuraan di xiyaamu layli du nu lekk ba suur ngir ragal yàlla du nu tëdd ci ab lal di nelaw waxtu yu bari du nu wax mukk lu seen yoon nekkul ngir ragal yàlla ba sëriñ Tuubaa nee na ñooña ku dox ba daje ñoom boo leen bëggee wala nga liggéey leen wala nga siyaare leen taxe ñeen na moo tax mu ne tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati ana lu ko war a mu ne naaloo bi xaffin rasulul mustafa rutaban sala alayhi les yuhtil masiyaati ana lu tax ba waree su leen koo defal ndax ñoom kat danoo royoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te roy gi ñu roy yonent bi ci la ñu jëlee ay may ci la ñu jëlee ay daraja ci la ñu jëlee ay teraanga ba ku dajeeg ñoom rek boo leen bëggee texe ñenn la nga liggéeyal leen texel ñenn la nga siyaare leen texe ñe na sunu siyaar bi yal na tàbbi ci inna lesina ila sar saara xat xasadu siyaarati faaraxu daayira ni aw saara yal na dellu tàbbi ci wa kullu man xaddama ni aw saara fa najjihi wax fir lahu aw saara Serigne Touba moo ñaanoon ca xasi rek Matlabul Fawzayni ca kër Serigne Saliou Mbacke ca roon xay ga ne ewa yow sunu borom mboolem ñi may liggéey ak ñi may siyaara jéggal leen seen i bàkkaar ëllëg yow man xëy musal leen ci sawara ba boromam defal na ko noonu kon nu maas rek ñaanaat sëñ Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko te dolli ko wér ndax day sagub lislaam day sagub yoonu murit day sagub dër bu ñuul waaye day ki dundalaat diine ndax ba lislaam demee ba ndar kepp ba amatul fenn fu mu jaar sëñ Bamba moo ñëwati rek di sëñ Mahamadou taxa mottaliwaat ko mooy eh, mun naa lay bil ulumi wal amal bil muntaxa wal kamali amal bi demee ba ne nañ tëj jàkka yi ak jumaa yi bu kenn julleeti mu ne déedéet salaaw fii ci Touba day jàkka yi du tëj jumaa yi du tëj wa tusbitan fihi jamaatan tuqiim asalawaatul xam si dahban yaa hakim kii mooy Serigne Touba tey moo tax mu ne woon ñëwu ci kenn moo tax mu saf sàpp ak borom Touba yal na yàlla yàggal ko fi lool te dolli ko wér yal na yàlla kàttanal ko yal na yàlla yàggal ko ci sunu kanam ndax moom mii kat ba mu toogee la wax ne dafa jóg jàng àddina waaye la mu jëlee ci jàng àddina mooy xam boroom tubaa waaye lam ci jëlee mooy borom tubaa moom ñëwu ci kenn moo tax ba mu jëlee tànkam bu tedd bi ñu ubbil ko bunt yépp mu ñëw ba ndakaaru ngir ubbite jumaay masaalikul jinaan keroog ba mu tegee tànkam nee na suufus ndakaaru am na mbégte moo xam ne naqar wu Serigne Touba amoon keroog ca ñaari guddi yooyee naqar woowee mbégte Masaalikul Jinaan far na ko ba moom moom moom sëñ Mahamadou Muntaxa ne moo koy waxal suufus ndakaaru yal na yàlla yàggal ko ci sunu kanam noo ngi siyaare jëwriñ ñi fi teew yëpp buñ ci jiitaloon soxna Adja Gàmmu Diop ca Masaalikul Jinaan teewal fi sëñ Alhaaji Mbàkke yu fay ak mbooleem Masaalikul Jinaan mbooleem Touba ndakaaru ak mbooleem jëwriñ yi ànd jëwriñ soxna Maam Jaara Mbàkke kenn ku nekk nag yàgg naa siyaare ji waaye seen mbos dafa dàq ngeen di siyaare ji Serigne Touba fekk ko tuuba biir daarul minan ku ngeen àndal ñu ne soxna maam Jaara Mbàkke bintu Serigne Mamadou Muntaxa yéen day am ngeen amati ngeen taw tawféex soxna si mi ngi may wax léegi nee na biig bi ma waxee Serigne bi ne ko jàmbaari maam Jaara yi ñoo war a ñëw suba siyaar si la sëñ Muntaxa dana ko ñooñu jéggi nañ ay jàmbaari maam Jaara ay ñayi xare lanu sëñ Muntaxa ne ko ñooñu jéggi nañ ay jàmbaari maam Jaara waaye ay ñayi xare lañu ne ko ñooñu liggéey bii ni nu ko ànd ak noonu rek la nan ci nekk rek day gën di neex di gën di yàgg nu xam ne kii nu àndal kii nu àndal la maamam ja liggéeyoon liggéey bu réy ba nu xam ne kii nu àndal la maamam ja doon julli ca biir néeg ba tànk bu ci nekk ak rabbu ne ca bam naan isa zakatu zalika al mabita wa zalika al wa sabota ñu xam ne kii nu àndal di soxna maam jaara moom la maamam julli woon ca birob góornóor ba ca ndar nu ànd maase santaat suñu borom di julli ci xayru xalqilaahi sayyidil awwalina wal na di jaajëfalaat soxna jaara moom mi nu àndal ñëw fii tey xéewal gu réy googu nga xam ne poroxaan sëñ Muntaxa li tax mu ne tey leen ne fa jëmmam ah war ngeen koo xam sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax mii dégg ngeen li wax ndax sëñ Tuubaa moo ne poroxaan ku ne fa jàng as ndiir boo ko fa fekkul dana la fa fekk moom poroxaan soxna maam jaara bi ñuy bëgg a màggali poroxaan sëriñ bi daa wax ne récciwul lu mu doon ameem soxna jaara loolu tawféex la joo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk kon yaa nanu yàlla doole dimbali yaa nanu yàlla doon lee taxaw bu ko defee na ñëpp ànd ak dal kàddu yi yëkkati yi ñu doon yëkkati kàddu yi fàttali rek la ak soññee te xam ne fii nu teew tey mooy kër borom Touba xam ne fii nu teew tey mboolem aaju yëpp fii lay fajoo xam ne kër gi nu nekk tey mooy këru xam-xam mooy këru diine mooy këru njub mooy kër goo xam ne loo fi ñaan mu nangu adhoo ko an taj allahu daaru tuqa wal ilmi wa diini wa daaril irtiqa wa jannatan li zalikin muridi wa junnatan an hatikin maridi fii mooy Touba anjitula jàkkaarloo ak jàkkaarloo ak yow mooy njabootu sa taalibe ba sa jëwrin ànd ak ñoom ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi raw liggéeyub soxna jaara muy soxna Mariam Bousso di soxna jaara féete fee ca Ndakaaru waaye soxna jaara ma nga ca bit ca mbaarum soxna jaara ba toog nii ni ñi toog ni jàkkaarloo ak yow noo nee la toogee foofu ak mbooloo mépp jàkkaarloo ak yow waaye mu ànd ak ay mbokki boppam soxna sooda moom sëriñ Xaadi Awa Ba sa taalibe mi ngi ni toog moom moo ko toogal fii nii waaye soxna Moussi moom sëñ Modou Zeng mi ngi ci mbooloo mi toog waaye soxna maam Issa Mbacke ahlul kafe moom sëñ Modou Fati xëri moom mi ngi ci mbooloo jóorin yëpp daal ñu ngi nii toog Mbacke lii la bindoon mu nekk ay jóorin yoo xam ne dañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi soxna Gàmmu Diop Masalik mi ngi ci mbooloo mi toog am mbooloo mi ngi fii toog ak mbooloo mépp ñu mu àndal soxna Maguette Ndiaye mi ngi fii toog ak mbooloo mi mu àndal soxna Soda Mbacke mi ngi nii toog soxna Aïda Fall mi ngi fii toog soxna Seynabou Ka mi ngi fii toog soxna Aminta jóop mi ngi mi ngi fii toog soxna Penda mi ngi nii toog soxna Maam Jaara moom Serigne Abdourahmane mi ngi ci mbooloo mi toog soxna Seynabou Sarr mi ngi ci mbooloo mi toog soxna maam Issa Mbacke mi mu la doon wax léegi moo toog ci mbool yi loolu mooy jëwriñ yi nga xam ne ñoo ànd ak soxna jaara liggéey ba nga xam ne amoon nañ ci ndigal muy liggéey bañ la defal fu fële ci sa barabu maam ba di sox soxna jaara muy bâtiment ak àggoon ñu ñëw ngir jébbali si ko waaye di sàkku ñaan di la gën a dénk boppam ak njaboot gépp ñu bàyyi ki nga xam ne moo yor kàddu soxna jaara mu yëkkati ko bismillah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ci turu mbooloo mi yëpp ci njiital soxna maam jaara mbakke mi nga xamante ni mooy sunu jëwrin di jëwrin yi daairatu maam jaaratullaahi mariyaamu busa bu soowu jant di ndeye askan wi ñoo àndaat tey ñëw fii ci sa kanam di siyaar si ak di jébbali si liggéey bi nga xam ni moom la nu ndigal waxtu wii daaw ca daara ja ànd ak bokki taalibe bi yëpp di mbokk yoo xam ni la nga leen santoon ña nga ca muy sax ci ndigal ak jaamu yàlla ak liggéeyal soxna jaara ak boole seen bopp te mbooloo mi yëpp ñi ngi ci loolu kon ñi ngi lay ñaanal Mbàkke nga yàgg fi lool te ànd ko wér te soxna jaara wax na ni nga ñaanal mboolem jëwrin yi ak mboolem bokk yi nga xam ni ñoom la àndal liggéey bi ndax day wax ni de waxtu wu nekk day wax ni ñoom de ay jàmbaar lañ ndax liggéey bi de ay soxna lañ ak i góor yàlla waaye li leen ñor mooy liggéeyal soxna jaariyatullaahi bu Buso amul guddi na amul bëccëg na amul tàng na amul sedd na lépp ngir liggéey Porokhane be jëm ca kanam mu mel ni simb yañ fa semboon suñ borom def na ci tawféex bâtiment bi nga xam ni ñoo ko fa doon liggéey liggéey nañ ko ba noppi ba caabi yaa ngi nii ñu ànd ak moom Serigne Salif Mbacké mii nga xamante ni moom nga nu booleeloon ca tegu xeer wa moom lañ bëgg mu yëkkati caabi yi jébbal la ko Mbacké kon loolu ñaan gu nangu la kon Mbacke ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ko wér ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk waaye di sàkku ci yow nga ñaanal mbooloo mi te doon ñaanal sunu jëwriñ ji muy soxna maam jaara mi nga xam ni mooy sunu jëwriñ te mate ko sëkk ñi ngi lay sàkku ci yow nga dolli ko ñaan. dolli ko wér dolli ko kàttan ak mbooloo mi mu àndal ndax mbooloo mii day pas-pas rek lañu àndeek moom yitte ju kawe rek lañu àndeek moom te loola waxtu wu nekk ci loolu nga ñuy soññi ci loolu nga ñuy teg ci loolu lañ nekk ñi ngi ñaan mbakki nga yàgg fi lool te ànd ko wér ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk ba li nga yéenee liggéeyal seexul xadiim sëriñ Touba suñ borom may la kàttan ak wér nga àggale ko nam la soobe ak mboolem njaboot ak sëriñ Touba kon kàddu yooyu la ñu waxoon ni nañ ko yëkkati ci kanamu mbooloo bi addi jaa ngi nii addiye jooju sa addiyey boppa mi ngi jëm si ci loolu moo jëm ci université bi ak yeneen lettre yooyu yëpp ay addiye la yu jëm si ci yow sëñ Mamor lii addiya la yoo xam te gaal yi ñu doon def ci liggéey université bi moo nekk yi moom itam ay addiya la yoo xam ay gaal lañ defoon lu waay am def ko ci ngir yàlla ak jëmmi alxuraan ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak ndigal moom mi moom lañ dajale fii moom itam kon ekkalu soxna jaariyatullaahi Mariam ba nekk soowu jant te ay tuut tànk di fa jànge te seeni bët muuru bokki taalibe yi nga xam ni ay tuut tànk lañ te nekk ca daare soxna jaara ja ca soowu jant te yàlla dogal seeni bët muuru te ñëwoon fii association sel yi yi nga xam ne ñëwoon nañ fii ànd ak soxna si doon siyaar si la nga ñaanaloon leen loola ñu bég ci lool ñoo ñoo defar netaal bee ñëw delloole ko ak cant mbakke di sàkkuwaat ci yow ñaan kon loolu mooy kàddu yi nga xam ni doon nañ ko yëkkati ci turu soxna maam jaara mbooloo mi nag bari na lool dañoo xajut fii ci saal bi lii ci sa kanam ay jëwriñ rekk lañ ña ca des ña ngi ca mbaaru maam jaara ma nekk faak soxna jaara di ànd ak ñun jotaay bii kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal baax gudd fan gu ànd ak wér ngërëmul Serigne baax ndax wóor nañu ni moom rek ngay sàkk waxtu wu nekk jërëjëf Mbàkke wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatoo sëñ Naar Diène. Naar Diène moom sëñ Sidi nii sëñ sëriñ Saliou daf ci doon dolliwaat lenn dafa wax ne soxna jaara dafa wax ne liggéey bi àgg na bañ indi ko Mbacke jébbal la ko waaye ci biir liggéey bi yëg nañ ci ñoom ak yokkute gu rëy waaye dañoo wax ne bëgg nañ leneen digal képp la ñuy xaar ngir fas yéene ko liggéeyaat indiwaat ko Mbacke jébbalaat la liggéey bi loolu mooy seen yitte mbokk jàppale soxna maam jaara ñaan rek ci jëwriñ ji soxna maam jaara moom sëriñ Muntaxa ak soxna Sooda Mbàkke moom sëriñ Xaadim Awa Ba soxna mi ci jataay bi soxna maam Isa Mbàkke ahlul café waaye nag ngeen ànd ak seenub càmmiñ di seenu jëwriñ di sëriñ Saaliw Mbàkke moom sëriñ Saaliw moom sëriñ Fallu moom sëriñ Soybu kon sëriñ Naar Jenn sëriñ bi nee na mi ngi wax alhamdulilahi rabil alamin mu ne mi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ñi ngi sant sëriñ bi. mu ne di sant it mbokk taalibe yu baax yi nga xam ne ñoo ànd ak maam Jaara. mu ne na ngeen xam ne bët bi muy xool maam jaar moom rek la leen di xool yéen ñii mu ne bët bi muy xooli maam jaara mooy bëtub sëriñ ak bëtu taalibe rek nag mu ne ndax sëriñ bi amul mbokk taalibe rek rek la mu ne kon ndokk bi nga xamee ne maam jaara xënte woona ak taalibe mu ne ba alhamdulilahi rabbil alamin ba mu ànd ceeg mbokk taalibeem yi toog mu ne loolu nangeen xam ne xolam sedd na ci guy mu ne yaakaaram it dolliku na ci xelam gën naa dal man lam yakun aarifun la la wala wazarun ngir Serigne Touba moom rek laa mu ne li mu waxoon léegi rek bët bi muy xool maam jaara ngir jëmmi Serigne Touba moom rek la leen di xoolee. mu ne na ngeen xam ne sant na leen bu baax te gërëm na leen. mu ne na ngeen xam ne mbooloo mi fu mu mën a àkke ji am mbégteem rek lañu. mu ne dalal ngeen xelam bu baax a baax. mu ne amuñu benn yitte bu du sëriñ bi. mu ne ndokk bi ngeen xamee ni yéen ñii sëriñ bi rekk moo leen tax a jóg. mu ne liggéeyal maam jaara moom. liggéeyal sëriñ bi rekk la. bu sell sell sell. na seen xel dal bu baax. Mm, mm, mm, na seen xel dal bu baax même moom mi leen boole ak sëriñ bi. taxawaay bu rëy bii ngeen am ci mu ne ngeen am taxawaay ju jii ngeen am ci mam jaara. mu ne loolu rëy na lool. mu ne rëy na fi moom lool. sori na ci moom lool. muy seen jataay bi seen taxawaay bi. xolam sedd na ci bu baax a baax mu ne day ñaan rek suñ borom sàmm leen mu ne gannaaw bi mu leen nangulee jëf ji mu ne bu ko ñaanee itam di ko ñaan itam suñ borom gën leen a gàttandoog tawféex sëriñ Tuubaa mu ne bu leen gàttandoog tawféex sëriñ bi rek seen lépp yéwén biir ak bit tey ëllëg lépp mu ne seen lépp barkeel. jërë ngeen jëf. mu ne seen ànd gi ak seen jataay bi mi ngi leen ciy seeral ne. mi ngi gën a yeesal jaayante ak sëriñ bi. di gën a fedd lay laxasaayam. fas yéenee sax dakk ànd ko yéen. liggéeyal sëñ Tuubaa rek. mu ne liggéeyal maam jaara moom. mu ne day lu ñu tànnaat ci biir liggéey sëñ Tuubaa bi mu ne kon na seen xel dal bu baax a baax jërë jëf mu ne kàddu yooyu mu ne mënu koo ñàkk ba yëkkati mu ne waaye fi mu àgg ci moom mënu koo génne wax ko ci làmmiñam mu ne jërë jëf day wax ne rek ne kàddu yi li ci xolam nekkul loo xam ne mën na koo génn ci làmmiñam ngir fas yéene la koo seereel ndax xam na seen taxawaay seen yitte ak seen pësteef ku ne mu ne li ko ci gën a neex nag mu ne tawfeex ji ngeen am mu ne ba ko sëriñ Saliou mii jokkoo ak yéen mu ne bokk ak yéen liggéey bi mu ne ndax moom sëriñ Saliou mii daf koo jukki mu ne jëme ko ci boppam ngir jëmmi sëñ waa gi rek mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf loolu rek la soxna mu maam jaar moom sëriñ Amsatu mi nga xam ne sëriñ Saali mooy jëwrinam ci liggéey bi mu ne xaas jang ko xaasaloon yéeg na ci aw tawfeex ba tàmbali naa jàngale alxuraanu karim waaw kon mi ngi nii ci biir mbooloo mi mu la koy seere rek mbàkke alhamdulilah mu ne loolu mbék mu dolli ko ci moom rek lay doon waaw mu ne kon yow sëriñ Saliou itam mi ngi lay dénk mbokkam yu baax yi alhamdulilah rabbil alamin loo mën loo mën ci loo luñ gën luñ gën a mën a gindikoo bi. mu ne loo mën ci luñ gën a mën a gindikoo ci sëriñ bi mbokki baax yi. mu ne na nga koy jëflante ak ñoom. xam ne. mu ne yéen nag ngeen xam ne. mu ne loolu képp la am. mu ne yittewoo sëriñ bi képp. mu ne amul leneen bëggul leneen. mu ne lépp lu ci am rek yéene na leen ko. mu ne lim ci doxee nag incha allah rabi dañ koy ànd rek. dañ doon liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. ci biir Soxna Jaara nga wax léegi ne tànn tànneef la waat ci biir liggéeyu sëñ Tuubaa bi. Mhm. ab murit bu liggéeyal sëñ Tuubaa ba noppi. Mhm. ba sëñ bi ne gërëm na. yi am na sañ-sañu nag fas ci lim bëgg sunu bëgg-bëgg nag mooy sunu borom ci boppam bàyyil la fi sëñ Tuubaa tey liggéeyam bii nga xam ne ci la jeexal dundam gépp jëmale woon ko ci moom seereloo woon ko yonent bi sallallahu alayhi wa lépp mu ñoŋalewaat la ko waaw yow ci sa jëmm na la ñoŋalewaat liggéeyam bi ba noppi sa fan wii doon ak kiimaan ci ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba li nga yéene ci liggéey bi lépp nga àggale ko fu kawe njort naal yii yëpp àgg ba yeneen naal topp ci te dara ba nga cee génn sëñ Tuubaa loolu mooy li ñu bëgg ñun te di ko ñaan sëñ Tuubaa te bëgg nga dimbale ñu ci loolu de dégg nga ko Mbàkke waaw moom de liñ bëgg rek da ngay ne soxna jaara day maanaam tànneef ci biir liggéey sëñ Tuubaa bi ñoom seen yéene jëpp daal mooy sa fan wii mu gudd lool ko ànd ak wér ni aw doj loolu rek mooy seen yite Mbàkke waaw ni ko sëriñ Saali waxee tënk gi daal loolu rek la Mbàkke Balla waaw dañuy ñaan sëñ Tuubaa daal bala fi ñu ànd ak yow ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaw waaw na ñëpp tàllal seen loxo bismillah allee billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokki internet yi di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision yi maa ngi tudd Soxna Astou Diouf jiite di chargé de communication fédération daayira Maam Jaara yi nekk sow jant tey ji dañoo ñëwoon doon jébbal si liggéey bi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi koy liggéey doon siyaar si sëñ bi doon ko laajit ak ndigal ci liggéey yi nga xam ne bëgg nañ koo tàmbali ca Poroxaan ah, liggéey yi ñu ko doon jébbal mooy Ah, eh, am na at ci ginnaaw dañ fee ñëwoon laaj sëñ bi lan nga xam ne moom la ñu gën a soxla mu boole woon ñoog sëñ Isaaxa ñu dem fekk ji ko Daaru Salaam bi ñu demee sëñ Isaaxa delloowaat ñu ci daara ja ne nañ jaw wax ak waa daara ja suñu waxee ak ñoom ñoom ñu wax ñu lan la ñu gën a yittewoo pour ñu defar leen ko bi ñu ñëwee ñu gis ne urgence bi moo nekkoon ñu defar leen dëkkuwaayu jàngalekat yi ñu yokk ko léegi mu nekkoon benn benn benn benn niveau rek ñu tegaat ci beneen niveau niveau biñ ci teg am na 17 chambres yoo xam ne dañ ko faa defaat chambre boo gis am na salle de bain te defaat nañ fa ay fosse yoo xam ne yu méngoog jamono la ngir dëkkuwaayu jàngalekat yi gën a mën a ñoŋ. waaw projet yi ci kanam bari na ndax fi mu nekk nii am na ñaari dortoir yoo xam ne kenn ci mbokk taalibe yi dafa ñëw laaj ko soxna maam Jaara Mbàkke ànd koog moom di ko def te ñaari dortoir yooyu gis nañ ne daanaka pare na fi mu nekk nii finition euh, euh, gros œuvre yëpp pare na ay finition rek moo ci des kon xam nañ ne fi mu nekk nii liggéey boobu ñu ngi ci. beneen bi ci des mooy gis nañu bi ñu defee euh, bi ñu defee euh, plan yeesal bi mbokk taalibe yi ñëwoon nañu ku nekk ñëw na jël ku nekk ñëwoon na jël ci euh, projet bi gis nañ ne fi mu nekk nii benn bâtiment rek moo fa des muy administration bi ñu gis ne administration bi nag xaalis bi takk moo koy liggéey ñi ciy laaj ndigal nag te ci woo mbokk taalibe yëpp ngir ñu ñëw ñu ànd kook ñun ndax yi gis nañ ne dortoir yi am na ñeneen ñu ko jël am na mbokk yoo xam ne sax daayira boo xam ne Italie la jógee jël na dortoir yi mbokk taalibe bi sëñ Dame Diané jël na li nga xam ne moom mooy euh, réfectoire bi ak cuisine bi gis nañ ne tamit am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañu ngir jël li nga xam ne mooy biandre bi muy daayira boo xam ne ay daayira murit la ay ay intellectuel lañu ñoom ñoo jël biandre bi ngir mën koo defar gis nañ ne daal yooyu yëpp ñu ngi koy defar fi nekk nii xam nañ ne li ci des moom mooy euh, administration bi kon soxna Dieng Maam Jaara mi ngi ciy woo mbokk taalibe yi ngir ñu ñëw àndandoo koog ñun ngir ñu mën koo taxawal. Ah, balaa soññe bi dañuy gërëm ñëpp ndax woote ñit ñi wuyu si la dafa dafa neex te gis nañ ne soxna Maam Jaara Mbàkke du leer gi mu doon leeru Sëñ Muntaxa rek waaye pastef gi mu def ci liggéey bi itte gi mu jox liggéey bi ak ak ak ak ak pasteef gi nga xam ne moom la am ci ànd kook sëñ bi ci liggéey bi nga xam ne gis na ne sëñ bi fi mu teg poroxaan moom it ñu tuddee ko soxna maam jaara moo xam ne moom it loolu rek la ci mën a def àndandoo kook mbokk taalibe yi ñu ko joxee ndigal li mu woote mbokki taalibe yëpp daw si nañ ànd kook moom surtout maa mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi nekk sowu jant ndax fi nekk nii fédération bi génn na fu nekk waaye waa sowu jant lañ ciy gën a remercier ndax gis nañ ñi ngi jël seen alal di ko def ci bâtiment bi ñi ngi joxe seen i addiya ñi ngi àndandoog liggéey bi soxna maam jaara saa yu wootee ñëpp bàyyi seen yitte ñëw ànd koog moom kon xam nañ ne loolu yitte la te mi ngi koy gërëm mi ngi ciy gërëm ñëpp soññe bi ñu ci def mooy comme ni ma wax rek benn bâtiment moo ci des ci li nga xam ne moo fay liggéey léegi nag bëgg nañu mbokk taalibe yi ñëw àndandoo ko fédération bi ñu liggéey ko ngir daara ji gën a mën a am xar-xar kanam bu bees bu yàlla. ci koppar fi mu nekk nii jébbal nañu sëriñ bi deux millions cent dix mille yoo xam ne dañ ko ko jébbal àddiyee boppam joxe nañu un million boo xam ne dañ koy dugal ci euh, euh, ci ci ci ci université bi ba pare am na yeneen mbokk taalibe yoo xam ne indi nañu seen i àddiyee bopp loolu lim bi mënu ma koo waññi yoo xam ne boole nañ ko ci enveloppe bi jox ko sëñ bi waaye li ñu mën a xam ci xayma moom mooy lim bi nga xam ne moom laa joxe. Eh, jërëjëf aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim eh, eh, sëñ Fallou ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy seetaan ak dañu déglu euh, di wax alhamdulilahi rabbil alamin euh, sant sunu borom bu baax euh, sant Serigne Touba Xaadima Rasul sallallahu alayhi wa sant soxna jaaratullahi Mariam mi nga xam ne moom lañuy liggéeyal ci toolub lislaam bi ñu muy liggéey boo xam ne ñu ngi ko tàmbali woon yàgg na ni ko mbokki taalibe yëpp rek di defee muy daayirab Maam Jaara Euh, ñu am tawféexu nag dem ba dajale ci ay daayira yu bëree bëree bëri euh, ci ndigalul Serigne Ishaqa nga xam ne moo jiite fondation Maam Jaara Bousso bi euh, ñu ci sant bu baax nag ndax bim ñu ko digalee ba léegi dajalante lu xaw a takku waaye bi ñu dajaloo ba ba noppi itam ñu xam ne mbooloo moom xaw rek ñu jëmmal ko ci lañ delloo ci moom nag fas yéene ànd moom liggéey bi waaye ànd waa Porokhane rawatina waa daaray maam Jaara Buso Jeey ca Porokhane muy tawfeex gu rëy ci ñun ñu bekk ci lool tax nag booba ba léegi ñuy dajale eh, di dem ci daayira yi di dem ci mbokki taalibe yi eh, di leeral eh, di yaatal liggéey bi ba am ci tawfeex alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla dollil ñu ñu tàmbali woon nag ab liggéey Eh, ca daara ji ndax sëriñ Isaaxa moom dañoo jox ndigal nag waaye dañoo bàyyeek waa daara ja eh, bi ñu demee ci ñoom it eh, ñu laaj leen nag fanu gën a soxlaa ndax lu am solo la booy jàppale nit laaj ko fam gën a soxlaa dina am solo ñu daal ñuy joxañ nag mm, bâtiment boo xam ne jàngalekat yu jigéen ya ñoo ca nekkoon waaye ñu mu aaja nag ñu dollil leen ko maanaam ñu teg ko ñu teg ca étage Euh, ñu tàmbali woon ko nag euh, heure bi daaw euh, suñ borom ba dimbale nu ba nu eggale ko moom lañ ñëwoon nag doon jébbal ci sëriñ bi caabi yi di ko jébbalaale sunu àddiya ci moom waaye di ko jébbalaale sunu àddiya ci université bi muy loo xam ne lu am solo la ñu ànd kook mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi rawatina jàmbaar yi maam jaara yi ci góor yàlla yi ak soxna yi euh, mu mel ne euh, bëggoon nañ ko euh, sàkk ko dox jëm ci am yéene ji suñu boroom dogal ko tey ñu ciy sant bu baax mu mel ne sëriñ bi nag bég na ci lool nun ñëpp nag itam bég nañ ci lool ndax liggéeyal soxna jaara dafa am solo day tawféex ndax day liggéey rekk ci toolu lislaam bi Eh, jaarale ko ci eh, soxna jaaratullahi Mariam muy la am solo eh, muy liggéeyal soxna jaara ci alquran waaye muy liggéeyal Serigne Touba itam ci alquran mu amati solo nag ngir ku ne xam na ñoom seenub taxawaay ci alquran ji ak ci diine ji kon noo ko ànd ak sunuy mbokki jullit ak sunuy mbokki taalibe euh, tàmbali woon nañu eggale nañ waaye naal yi euh, bari na kon noo ngi sant nag mboolem ñi nga xam ne rek ñu ngi àndoon ak ñoom ci bâtiment bi euh, di leen gërëm di ñaan sunu boroom mu guddal fan yi wéral cër yi waaye yokk xéewal yi ba ñu mën a gën a liggéeyal Serigne Touba ci toolu lislaam bi waaye liggéeyal ko soxna jaara te ànd kook Cheikh Mouhamadoul Mountakha mii nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te wér noo ngi sant ñëpp di gëlëm ñëpp eh, bàyyiwuñu kenn rawatina nag sunu eh, mbokki bopp yi nga xam ne eh, ñoom la ñu àndal ci liggéey bi kenn ci ñoom a ngi toog nii di soxna Soda bintu Serigne Khadim Awa Ba ñu ànd kook ñoom ànd kook soxna maam Issa lu kafe ànd kook uh, soxna maam jaara moom Serigne Modou Boussa Dieng ak mboolem yi nga xam ne rek ñu ko ànd ak ñoom ñu ngi leen di sant di am mbégte lool ci ànd bi waaye ñu ngi sant nag mboolem uh, uh, jàmbaari maam Diarra yi gis nañ taxawaay yi ngi sant jëwrin yi ba ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi ñi ngi ko ànd ak ñun muy guddi muy bëccëg muy taw wala mu naaj. ñu ko ànd ak ñun rek lépp loo xam ne euh, liggéey bi laaj na ko rek euh, euh, taxaw nañ ca ba alhamdulilahi rabil alamina niñ taxawee ci ziar bi noonu la nu mas a taxawee ci liggéey boo xam ne bépp rek tàmbali nañ ko ca daara ja ñuy ñaan nag wax dëgg yàlla li nga xam ne tàmbali nañ ko te muy la am solo mooy liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Soxna Jaara ci toolu lislaam bi ñu àndandoo ko lu yàgg a yàgg yàgg yàgg tam ànd ak wér ànd ak wérle ànd ak xéewal yu yaatoo yaatoo yaatu ba ñu mën a mottali suñu ci barke eh, Serigne Touba Xaadim Rasoul ci barke mbaaxu soxna Jaaratullaahi Mariam eh, maa ngi am yéene eh, tudd mboolem jawrin mboolem jàmbaar yi waaye kon day gudd waaye daal maa ngi am mbégte lool ci ni mu àndeek man ci liggéey bi. di sant yàlla bu baax waaye nag di soññaat sama bopp rek di leen soññaat uh, ndax liggéey bi day taw féex uh, léeg damay wax ne uh, liggéey liggéey bii ku amul taw féex doo ci mën a tàbbi ndax sëriñ Mountakha day day wax ne selliti liggéeyu sëriñ Touba la kon liggéey bu am solo la boo xam ne ñu ci bëri sax su ma toogeek ñoom gis ni ñu xëree ci liggéey bi damay daal di xam ne lii moom euh, dug neen maanaam Serigne Touba Hadim Rasoul moo mel noonu loo ko liggéeyal mu law ba ci sëy sët ba ci say sëtaat euh, soxna jaaratullahi Mariam naka noonu kon ñépp ñi nga xam ne ñi maa ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi euh, maa ngi xam ne tawféex la nu am kon maa ngi leen ci soññaat bu baax a baax a baax a baax ginnaaw ba ma ci soññee sama bopp ndax day liggéey boo xam ne njëriñ rekk ci nekk tey ak ëllëg booy liggéeyal soxna jaara dangay mujj mel ne ku nekk àjjana sax ndax jikkoom yu rafet yi ak mbaaxam ga mooy tax dootoo tooñ te ku la tooñ nga baal ko loolu tawféex la ndax euh, kuy kuy tooñ euh, du am jàmm waaye kuy fayu tam di noppalu kon boo dee liggéeyal soxna jaara foofu ngay egg foofu la lay yóbbu maanaam dana dana la yóbbu foofu waaye dina la tënk ba nga xam ne lépp loo xam ne ay neen la dootoo mën a dox jëm ca te loolu itam lu amati solo la ndax ku ne xam na ne euh, li nga jëf ci àdduna liggéey ko fi rek moom ngay fayee ko bu ëllëgee liggéeyal soxna jaara nag dina la tënk dina defar say jikko dina defar sa biir dina defar sa bitti ba lépp loo xam ne rek lu baax la moom rekk ngay daw di wuti waaye lépp loo xam ne safaan la euh, ku la cay woo sax euh, da nga koy mere waaye dootoo mën a dox mukk jëm ci loo xam ne ay neen la kon maa ngi koy yéene ñëpp di ci soññaat sama bopp bu baax di leen ci soññaat di woo ñi nga xam ne ñëwagun itam ci liggéey bi rawatina daayira rey maam jaara yi ñu ñëw ñu àndandoo euh, liggéeyal soxna jaara liggéey daara ja damay wax ne soxna jaara yomb naa liggéeyal nag ginnaaw ba liggéey bi amee noonu solo yomb naa liggéeyal ndax soxna jaara nag bàyyi na fi ab dëkk bàyyi na fi kër bàyyi na fi daara kooku kon euh, ku koy liggéeyal di nga xam fa ko war a liggéeyale euh, te dama naan soxna jaara bu nekkoon poroxaan euh, woote ca këram gee wala woote ca daaraam gee dina xumb lool waaye soxna jaara mi ngi ci sun biir te jógu fi kon nan ko xamee noonu nañu daw nañu gaawantu nanu njëkkante liggéeyal soxna jaara ci toolu lislaam bi ci daaraam jee nga xam ne lépp rekk day delluwaat ci liy yëkkati diine ci lu yëkkati alquran waaye ci liy wane liggéeyub Serigne Touba kon maa ngi ciy soññ sama bopp di ci soññaat mboolem mboolem samay mbokki jullit samay mbokki taalibe waaye rawatina liggéeykat yi maam jaara yi yàlla na nu sunu borom ba dimbali xiir ni ci lu baax te saxal nu ci Eh, ragal loolu lu bon te ñu moytu ko ba faaw ci barke mbaaxu soxna jaaratullahi mariam maa ngi dégglu ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñaan sunu borom mi nga xam ne mooy dimbalee mu boole nu dimbali ci barke Serigne Touba Xaadim Rasul ci barke mbaaxu soxna jaaratullahi mariam Bousso jërë ngeen jëfati wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy ziar bi nga xam ne moom lañ leen jëlale woon ci kanamu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides samedi dëppoo woon ak fukki fan ak ñaar ci novembre atum 2022 di ziar bi nga xam ne fédération daayira Maam Jaara yi nga xam ne ñoo nekkee ca Ndakaaru ci njiital soxna Maam Jaara Mbacké bintu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñoo ko doon amal ci kanamu Serigne bi ñoom fédération bi nag di santaat mbooleem taalibe yi mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ziar bi Pastef gi nga xam ne wane nañ ko ci ak dogu gi waaye rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xam ne ànd nañ ko di liggéeyal soxna Jaara Buso ci dëkkam bu sell bi nga xam ne moom moo di Poroxaan waaye liggéey yu am solo yi nga xam ne ñu koy liggéey ci daara maam jaara ji liggéey boobu nag di projet bu yaatu boo xamante ni fédération bi ñu ngi ciy soññu mbooleem taalibe yi ak koo xam ne jëf lu baax ñor na la ngeen ñëw ànd ak ñoom ngir ñu gën a taaral daaray maam jaara ji ci projet yu yaatu yi nga xam ne moom lañ naal ci bërëb boobule. képp ku ci bëgg taabal tàbbal sab ñaq wala nga ànd ak ñoom liggéey bi numéro yaa ngi nii affiché mën nga ci jokkoo ak ñoom. fédération daaray maam jaara yi nekk ci Dakar ndeyu askan wi. ñooy ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér yàgg ko fee fekk ngir jébbal ko seeni ziyaara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu